asalaamualeykum président Macky Sall man Ansoumana Dione kuréel gi toppatoo ak ak yelleef ñu am feebaru xel maa ngi ñëw tey waxtaan ak yow ci tolluwaay réew mi gis nañ ne woote nga pour sa parti APR ñu jaayal la ay carte jëm ci million ak genn wàll moo ne. da nga fàtte ne yow yaay président wu 17 millions de sénégalais kon looy doyee ay carte ba di ko jaay faluñu la pour ngay politique waaw dañu la faloon askan wi pour nga taxaw leen ci seen ay jafe-jafe man Ansoumana Dione sa carte boo ma ko moyoon sax duma ko jël soxlawu ma sa carte yow président Macky Sall dañu la faloon pour ñu amee feebaru xel ñu taxawu leen handicapé yi ñu taxawu leen agression yi ñu jëlee ko fi taalibe yi ci mbedd bi ñu saafara leen seen nekkin dund gu cher gi yaa ngi fiy jéem fan yi te tey la gën a cher wàllu xëyu ndaw ñi tey la ndaw yi gën a sonn ñu ngi nii di jël gaal gi di dem waaw tey nga ne yow da ngay jaay ay carte pour lan ñu fal la deux mille dix neuf pour deux mille vingt quatre gannaaw ba ñu la falee deux mille douze deux mille dix neuf daanaka fukki at ak lu topp nga nekk ci bopp réew mi ba tey jafe-jafe nekk fi tey amoo loo ñuy wax lu dul nga ne da ngay jaay ay carte xanaa dégguloo li génn ci élection législative yi. lu ëpp juróom fukk ak ñett ki ñiy voté toog nañ seen kër ne voté jiwuñu xanaa ñoom nga bëgg a waxal wax ak ñoom yomb na du ay carte déedéet wuyu leen ci seen ay soxla ak seen ay jafe-jafe yaa ngi tëj sa buntu pale ñan ngay recevoir ñiy saaga ñan ngay recevoir ñiy politique ana ouvrier yi ana mécanicien yi est-ce que dalal nga leen. ana syndicat yu yëngu ci wàllu santé tey jii gàllankoor système bi di gàllankoor wér yaramu askan wi est-ce que dalal nga leen ñaata nit ñoo fiy ñaxtu est-ce que ubbil nga leen sa buntu pare déedéet tey nga ne nañu ñëw jënd sa carte man en Ansoumana Dione maa lànk jënduma sa carte boo ma ko mayoon sax jëluma ko parce que da nga fàtte ne yow yaay sunu njiitum réew ana njiitum réew ne day jaay carte gannaaw ba mandaam jeexee président Macky Sall sa parti sa coalition am nañu sañ-sañ am nañu droit waajal ay élection waaye yow président Macky amuloo boobu sañ-sañ sa parti nag mën na ko waaw sa parti mën na ko sa coalition mën na ko waaye yow sa jëmm ñun askan bi ñoo la moom kon mënoo ñëw di ñuy jaayaat sa bopp déedéet loolu mënul nekk xoolaatal sa doxalin sa askan dañu la mere te xam nga loolu yow xam nga ne sa askan dañu la mere comme nag xam nga ne dañu la mere taxawal ci nga juboo ak ñoom juboo bi lenn kese la man tant nit ñi ñu amee feebul xel ñi ci mbedd mi taxawalu man jàpp ma ne am nga bilan ñi wax naan am nga bilan ñu ngi lay nax président ma Sall li nga def du bilan def lu la neex pour mu neex askan bi te loolu mënul neex askan bi du bilan binaa mooy askan bi ñooy bëgg ci yow ñu ne ñun kat lii la la sasoon defal nga ñu ko waaye li ñu indi lépp ñun soxlawuñ ko kon xoolatal sa doxalin man Ansoumana Dione nag du ma deñ di la wax dëgg ndaxte askan bi moom mu ñor en quatre mënoo nekk candidat te doo ko nekk ndaxte yaa ko waxoon yow yaa waxoon ne bii mooy sa ñaareelu mandat ak bu mujj kon jeex na loolu sa parti sa coalition mën na teg ku ko neex waaye jàpp naa ne nit ki mënoo koo yoreel yoreel bu bon ba noppi mu lay jiitalaat loolu mënul nekk ne askan bi kontaanuñu si yow président Macky Sall nga xam ko ak ñàkk ko xam te xam nga ko it xam ko moo tax nga ne nañu jaay ay kat lu toll ak million ak genn wàll gisuma sénégalais bu ko mën a jënd gisuma ko gisuma ko gisuma ko en tout cas man Ansoumana jon bégguma ci ni ngay do bégguma ci ni nga yoree réew mi bégguma si ni nga toppatawee réew mi ndaxte man tànk ñi amee feebaru xel ñu ngi ci mbedd mi toppatoo woo leen man gisuma sama bopp ci réew mi ñu amee feebaru xel gisuñu seen bopp ci réew mi mbokk ñu amee feebaru xel gisuñu seen bopp ci réew mi Ablaye Wade tabaxal na ñu amee feebaru xel ab kër ci Kaolack yow loo leen defal yow yow président Macky Sall lan ngeen defal yàgg si nguur lu dul tëj boobu lay kër ñi nekk ci mbedd mi amee feebaru xel di dee ci mbedd mi comme ay muus ndax li jaadu na génnal sa buntu pale nga jàkkarloog ki amee feebaru xel foofu di di ab soxna yor fa benn mbaaram ci buntu pale mu nga jàkkarloo ak moom ndax loolu jàddu na maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la gudd fan ak wér man sa soppe man sa xarit man Ansoumana jon cër gi ma jox ma xam ko ràññee ko waaye nag ñi amee feebaru xel da leen a fàtte ñi amee laago da leen a fàtte taalibe yi si mbedd mi toppatoo woo leen rey gi ci mbedd mi nit ñaa ngi Sénégal nit ñaa ngi reyante xaw ma ndax yëg nga ko wala yëguloo ko bés bu jot ñu rey nit maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la wér yàlla dolli la guddi fan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa